fayam. te amuñu fayam. ñu ngi ñaan rek mbooloo mi yëpp. ñu ngi ñaan mbooloo mi yëpp. ànd ak ñun. ànd ak ñun. ñaanal ko mu yàgg fi loolu. ñaanal ko mu yàgg fi loolu téeméer. muy taawu kër gi muy alaaji Youssou Ndour. mu topp ci moom. nee na mu topp ci moom. yàqul dara. nee na yàqul dara. waaye ndey ju mel ne ku ko am. nee na ndey ju mel ne ku ko am. waroo tiit waroo ragal. waroo tiit waroo ragal. day dem rek. day dem rek. waaw du ges mu day dem rek du day dem rek. bu ma jógee ci loolu nag. nee na bu jógee ci loolu. tey sunu xol dafa sedd. nee na tey suñu xol dafa sedd. ndax li tax sunu xol sedd. nee na lu tax sunu xol sedd. tey dafa am ku moom bés bi. am ku moom bis bi. ki moom bés bi muy sama nee na ki moom bis bi di rakkam. di sama rakk ju am jom. di rakkam ju am jom. di sama rakk ju am eh, bu am pulla eh, ak fayda. di am rakkam ju am ku am pulla ak fayda. di sama rakk bu rëy xol. nee na di rakkam bu rëy xol. di sama rakk ju daw ci njaboot. nee na di rakkam ju daw ci njaboot. ñu koy wax ñu koy wax Aby ah jii bu ñu toogee. nee na tey jii bu ñu toogee. amul lu dul benn doom bu jigéen. amul lu dul benn toog. ñu koy wax binu mi toog. kon binu moom la ndeyam kon binu ni mu war a mel rek noonu la noonu la ndeyam mel. kon ñun suñu xel dal na. nee na kon ñun na. di ñëpp. nee na ñu ngi sant ñëpp. di sant Omar. sant Omar. mi xam ne moo waral bés bi. nga xamee ni moo waral bés bi. mënoon na dugg feneen. nee na mënoon na dugg feneen. amaan xëy na mu baax. amaan na xamaan na mu baax. waaye fii la ko yàlla dogalee. waaye fii la yàlla dogalee. te Youssou nag. te Youssou Youssou nag. dafa am ñun ay rakam nee na Youssou dafa am ñun ay rakam lañu. dafa am ñu sës ci moom rek. nee na dafa am ñu moom rek ñu mel ni ñoom. ñu koy ñu ciy jiital Mara nee na ñu ciy jiital Mara Dieng. Malick Mbaye. Malick Mbaye. ak. Euh, Pedre Ndiaye Pedre Ndiaye. ak Pedre ak mboolem ku fi teew. ak ku fi teew ak Momar ak Momar Dieng. Momar Dieng ah, boobu. di gërëm ñëpp nag. nee na di gërëm ñëpp nag. ah binu mi ngeen jël tey. nee na binu mi ngeen jël tey. sunu doom la. sunu doom la. jaaxaluñu de. jaaxaluñu de. ndax ku xool yaayam ji. ndax ku xool yaayam ji. fulla gi ci ndeyam. fulla gi nekk ci ndeyam. fulla gi nekk ci ay waajuram. ak i maamam. li ko raw moo nekk ci moom. kon nag li ñuy ñaan. kon nag li ñuy ñaan. yàlla na sëy bi barkeel. lépp lu mu ragal yàlla bu mu ko gis. nee na lépp lu mu ragal yàlla bu mu ko gis. jëkkëram it yàlla na mu mën a téye jabaram. jëkkëram tam yàlla ko yàlla dooleel aar ko ba mu mën a yor jabaram. nee na soxlawuñu dërëm. musuñu laaj kenn dërëm. musuñu kenn dërëm. ndax ñu ngi sant yàlla bu baax waaw li ñuy laaj mooy yor bu rafet. mooy sàng sutura ku ne xam ne sëy ci kaw la meññee ku ne xam ne sëy ci suuf yëpp pooba rakkaan. ku ne xam ne sëy ci suuf yëpp pooba rakkaan ko jur tey. ah ba jur tey ki nga kon nag yàlla. kon bi barkeel. yàlla dàqal ñu seytaane musiba balaa Boubacar Ndour nee na di gërëm tamit Boubacar Ndour Bouba Sénégal la nee na Bouba Sénégal la Bouba démocrate la Bouba démocrate la macha allah macha allah di gërëm tamit gërëm tamit ki nga xamee ni xale la de xale la de mais dafa am cër bu xam ne xale dana ko for mag dana ko for nee na am boo xam ne mag dina ko for xale dina ko for yàlla def ci moom kilifa yàlla def ci moom kilifa te moo mujj ci kër gi te moo mujj judd ci kër gi muy defarkat muy defarkat di defar lu bari di defar lu bari njaga dama koy tëb ndax bëgguma lim ñëpp nee na njaga daf koy tëb ndax bëggul zéro faute nee na jaga zéro faute kon nanu sant yàlla kon nanu sant yàlla di ñaanal nag abi sa sëy doom ji di ñaanal abi sa sëy doom bi yal ko yàlla barkeel yal na yàlla barkeel yal na ci yàlla def sutura yal na ci yàlla def sutura yàlla def njaboot ju barkeel yal na ci yàlla def njaboot ju barkeel di ñëw tamit ci ko xam ne di ñëw ci ki nga xamee ni sunu la sunu rakk la waaye yàlla mooy def kilifa. yaa yàlla mooy def kilifa muy ngóone nduur male muy ngóone nduur male. gàcceeluñu benn yoon ñu benn yoon. liggéey liggéeyam. liggéey liggéeyam ci fulaak ci fayda ci fulaak ci fayda. yàlla xiir ko ci ay xale. yàlla xiir ko ci ay xale te yow nag nee nañu képp yàlla. te nee nañu nag képp kuy jaamu yàlla. na nga yore xale bi ba mu gis la ba bëgg la ba tafu ci yow. nee na na nga yore xale bi ba mu gis la ba bëgg la ba tafu ci yow. nu dara lu ñaaw ci yow loolu jaamu yàlla gënu loolu jaamu yàlla gënu ko foor kon ñu sant yàlla di ñaanal sunu rakk ji nga xam ne nag di ñaanal sunu rakk ji nga xam ne moo ne ci kër gi uuf sunu yaay ji uuf sunu yaay ji muy faatu li ngeen muy faatu li ngeen yàlla may ko lu kawe njot yàlla may ko lu kawe njottam nee na mi ngi jégalu ci kàddu yi nee na lu ci jub yàlla lu ci dëgg ngeen xam ne mel ma nee na mi ngi gërëm ay jabaru rakkam yëpp di gërëm jabaru yuusu di gërëm jabaru yuusu ndax sunu jabaru rakk yi raar na torop nga dugg ci famille raar na torop nga dugg ci famille fekk njëkk ya fekk njëkk ya ya ak goro ya ak goro ya ak ñi nga bokkal sa jëkkër ndey ak baay sa jëkkër ndey ak baay booloo doon benn booloo doon benn def GIE di dóor di daa di dóor di daanu di waxtaan di waxtaan kon loolu lu foofu fii la xewee kër kon fii la xewee kër Elimane Ndour kër Soxna Mbour jërëjëf kon nag kàddu yaa ngi noonu jërëjëf léegi mbooloo mi ndax ñi ñoo bokk baay suñ ñaari maam nee na ñoo bokk jënd ndey dafa sant géej ñu sant sant béy loolu demee mais Moustapha Seck mi taxawoon fii léegi yaayam ak baayu Omar nee na ñoo bokk ndey ak baay nee na Cheikh Gueye mii Cheikh Gueye ak yooyu maire moom yaay papa papa Omar baayam moom mii Modou Bey baayam Modou Bey moom Cheikh Gueye mii. baayam ak Omar ñoo bokk ndey ak baay kon ay mbokk fi tase jaman Omar yi ñëpp ñëw nañu waa Mbuur yi ñëpp ñëw nañu ne lépp rek yàlla ak mbokk ak njaboot bi si Moustapha mais toog ñëw na indi si jàkk ja moom magam bii ñoo ko ñoo ko indi ñoo ko andi ne bu ngeen fa demee tase ne fa ak ñoom Cheikh Bey ñoom ñëpp nee na kii ñoo bokk benn baay nee mbokk yëpp doon benn nee taxawaay bi rafet na ñu ngi sant bu baax di leen gërëm sunu xel dal na ndax fi ñu nekk nee bu ñu déggee ne président Youssou Ndour mi jarbaatam nag xam da koy bëgg nee amatuñu ci laaj dafa yàgg a sopp Youssou da koo yàgg a sopp da koo yàgg a sopp sonn ci moom sonn ci moom te boobu xamante wuñu woon sa goro sa goro mu ne da laa yàgg a sopp da ci nuyu de foore kon loolu yàgg na sa waajur wu jigéen sa mbaay mu laa jógee bi laa at sanaan dara muy tàlli ceeb boobu xaw ma woon yuus ñëw fekk ñu naan ko ndox jël ndox mi jox ko mu ñëw mu sa waajur mu nekk ci mbaamu liggéeykaay mu nekk ma ne dëgg laa ma ne ko man dëgg laa dama ñëw dama ñëw ma ne solo ci mbir mi nii waaye booba waaye booba ne xamul sax mooy sa waajur alaaj ilma xam naa sa yaay waaye gis naa sa waajur waaye xaw ma sax mooy sa waajur jamono boobu loolu lépp nga ba ndëkk nii amul dañoo dugg sa kër amul lu ciy xalaat amul lu ciy yokk def ñaan leen yàlla rek yàlla barkeel bi sëy bi dañ cee bëgg sëy bi dañ cee bëgg jigéen ci kër ga jigéen ci kër ga tey dana waxoon ni ñuy def dana waxoon ni ñuy def may leen def ñu dara góor ñi da ngay dem loolu la ma Omar waxee noonu la ñuy def waaye moom nee na yëpp jig nañ am na ci mbégte na ci kontaan yi xam ne nag euh, mooy boo bokk yaay ndey ak baay nee nijaay ne boo bokk yaayam ndey ak baay nee daa bëggoon a ñëw waaye mag la moo tax Omar moo tax Ibrahima bay ñëw ak man ñoo ko fi nekkal ak Moussa bi kon mi ngi sant ñëpp sant sëñ bu baax sant mboolem bu teew yëpp mi ngi sant ñëpp te yàlla barkeel lépp yàlla yàlla barkeel léegi nee na bi ñu ñëwee nag Faatumata Bintu ba ñu tegee pere moom ñëpp yaakaar kon nag léegi suñu suñu doom bi ñu ñu ñu maye. bu mhm. dox si kaw ñu maamam. moom la sàngaay. dèjà bu bu koy ñaanal. maa ngi leen man bu dee si si am na ay xale maa ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm ñaan bu baax si bu baax si léegi mbooloo mi nangu sëriñ bi ñaan Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mooy bàyyam sëriñ Modou moom sëriñ Fall na mu leen ñàkk. si aajo yëpp. te xam ne kii ñëw fii. ba du état Dakar de. amiin Mbacke. amiin. amiin Mbacke. amiin. amiin Mbacke. amin jërëjëf Mbacke amin ñëpp bëgg nañu wàllay ci bur si Mbacke Maram ah Cheikh Mouhamadou Moutala yaakaar naa balaa nga mbir bi nga bàyyi ah, ah sama xarit dana gën a def sama xarit bokkal bi tegal bokkal bi xar la na bi il faut ngeen jàpp ngeen ñëw école 221 waaw Okay. ah mon frère kontaan naa wax yëpp wax yëpp wax yëpp rafet na rafet na rafet na rafet na kontaan nañu trop. félicitations mon frère. ça va bien. non sa waay. sëñ Amar Mbacke mii moom Cheikh Mouhamadou Mourtada. sëñ Modou. bu ñu yëgee kàddu léegi yóbbaale na ñëpp. afin de susciter la wala dañ ko li may bëgg wax. dama ko doon nuyu rek. bunte bi laa doon seet. Mouhamed maa ko nuyoo lool si Waly Mbegaan Ndour. keroog ba mu gane see àdduna. dañ koy teral ba ah repayer. si suñuy mbokki séeréer ne okkiino para okkiino maak daa di deente si biir jël seen si tan dugg àll bi andil ko njamal dañ koy teral sa maam dañ koy teral kon yu baax yu mel noonu buñ koy wax ci société defaral tax a jóg ñuy sant yàlla bu baax nag di nuyu la famille Mbàkke bàyyiwuñu kenn waaye tey ma tagg leen si ñaari casquette ndax li si Sénégal ñii Mati Mbàkke leen nampal ñii Maara Mbàkke moo leen nampal muy kan Alaaji Maalik ñu ma ci Mbàkke nampal Maara Mbàkke mi nampal ah, ah, ah, Cheikh Ahmed Bamba radiyallaahu taala anhu muy mbokk boo xamante ni sentiment yi muy daw dañ leen di topp ci silsila ba ci rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ñu xàccee loolu nag jënde ko ak ngor ak pas-pas ak taalube ne dañuy tarbiyu yonent bi waaye dañ leen di topp ci xeet ba ci yonent kon ñaar ñu baax ñooñu fu ngeen teew dee leen si doole na yéen teewal leen ay Cheikh Ahmed Bamba alaaj maa leen ngeen gën a teewal nee